c'est toujours très simple de faire appel à des lois yoo xamante ni elles sont scélérates dañ koy utiliser juste pour nasaxal ñe ñenn ñi le le cas de Khalifa Sall et passé par ici on a vu c'est-à-dire que lan la ñu wax waaye le truc n'est pas suspensif CEDEAO bi ñu bokk lan la wax ni ko on n'a pas respecté ses droits au départ ça veut dire quoi ça veut dire que la forme n'est pas bonne quand la forme n'est pas bonne on ne peut pas juger le <laughs> fond c'est vrai après que ce qui s'est passé on dit une première condamnation il fait appel on dit c'est pas suspensif donc il n'est plus candidat et après que ce qu'ils font dañoo dem changer loi boobu la taxoon ñu ne la lañ leen waxoon ni que c'est c'est c'est suspensif ñu bañ ko bañ ca paree dañoo dem changer. c'est le rabat d'arrêt. oui oui non c'est le rabat je comprends xëy na des fois je perds mais dans la période où on est. je suis désolé de le dire cest dire que jooy doole moo fi on aime bien la république on aime bien respecter la république mm-hmm. mais tant que république il y a je rappelle que en fait gis nga cette violence là c'est comme je dis c'est déjà que ça soit verbal ou autre ça commence par le président de la république démb je le disais quelque part c'est que il est très violent dans ses termes en tant que président de la république chef de famille sax warul violent ci famille am ci wax le président de la république il te dit waaye soo leen bëggee ngeen ñëw soo leen bëggul yéen a xam ku gedd sa yaay ay et comme je dis boo nee kilifa borom kër bu nee ku gedd sa yaay ay dafa fekk nga joxe dépense dépense bi moom moo ko c'est nos deniers publics c'est notre budget c'est pour le Sénégal c'est pour les Sénégalais beneen bi tu dis waaye vaccin yi boo leen ko buggul ma jël ko mayee ko beneen dëkk c'est nos vaccins qu'on a acheté on n'a pas de c'est pas parce que deux personnes nee nañu bëgguñu vaccin que cest dire que la personne est toujours violente dans ce qu'il dit et l'un dans l'autre tu sais un pouvoir en disant moi je vais réduire mon ex mon opposition à sa plus simple expression ok vas-y mais ce que tu risques d'avoir parce que nag la nature a horreur oh, du vide on n'aura jamais un pouvoir sans opposition c'est même la constitution la nature a horreur du vide et ce que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire les actes que vous êtes en train de poser forcément ce sera la poids le poids et la réaction lit ki li nga joxe donc ngay am quand tu donnes la violence tu auras la violence quand tu donnes la paix tu auras la paix